dama ne dañuy gërëm bu baax madame le maire Mariama Sarr maire Kaolack ci ndimbal yi nga xam ne nii indi na ko pour dugal loxoom ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ko ci coronavirus nga xam ne ñun ñëpp benn noonu lañ am tey jii muy coronavirus te il faut ñu daan ko nag moom xam na ko ba tax na mu indi ndimbal bu am solo bi nga xam ne lim nañ ko fi léegi muy produit buy désinfecté buy raxas produit buy protégé nga xam ne da nga koy kii say loxo ay gel indi fi ay savon liquide ay madaar indi fi ceeb bu bëri euh, ak yeneen i produit yu nga xam ne nii day jëm ci kër ñu koy gërëm bu baax di ko sant bu baax ci turu président la république son excellence Macky Sall di wax rek ne euh, li man waxtan non naa ci mom parce que dafa ma laajoon nan lañ ko bëggee ma ne ko jëndaluñu ko produit mo ñu gënal sax xaaliss bi xaaliss sax la non joxe ma ne ko jëndaluñu ko produit parce que bu produit yi nii dana mëna dem euh, ci euh famille yi nga xam ni actuellement ñi ngi leen di ñi ngi leen di surveiller parce que xam ngeen ne amna ben cas buñ buñ feneen buñ signalé feneen te cas boobu euh, euh, waajooju jaaroon na fii bi mu fi jaaree nag am fi ay fan dem ci beneen région région boobu ba fa demee ñu déclaré ko positif donc xam nga dafay war bon ñu seet fii bi mu jaaree ci région bi fan la jaar ñan la nekkuloon ci yan famille la nekkoon ñan la ñan la doon àndal ci yan oto lu duggoon loolu lépp tey jii xam nañu ko man nag bu may def léegi bu may bu may waxati ci affaire kii bi damay def attention parce que génn naa fi def naa fi benn interview ñu génn ko RTS journal télévisé ñu dagg ko changé ko ba da nga yaakaar ne Kaolack ñu na fukki kaa ak ñeent ak nangam te dara amu ci loolu dama ciy profité pour wax wax dëgg yàlla xanaa nag boo xeexul boog nga bàyyi ñiy xeex boog ak seen coono mais xeexoo ne bu kenn xeex te kat ki ñuy xeex muy ennemi boobu yow bu dalee sa kaw yow doo ko fekkee ngir yàlla ngir yàlla ku nga xam ne nii mënoo bokk ci xeex bi mënoo dimbale nit ñi mënoo mënoo mënoo def lu baax nga bàyyi bokk mu nit ñi di def lu baax wala ñuy wax lu baax nga bàyyi bokk bañ cee xapp suuf